وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة وعصمنا به من الزيخ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بسعادة آجالنا وحقق بالسيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك سادنا والثقة بك ذكرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأسواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى روح خديم المصطفى عليه رضوان الله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 mbokki jullit yi fi teew yëpp mbokki taalibe yi ñoo ngi jéggulu kàddu yi te di leen nuyu leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen nuyu ci turu sëriñ bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalifatu Cheikh al Xadim mi nga xam ni moo nu fi yabal si nam ko baaxoo defe at yi yëpp ñu di ko fi teewal ginnaaw bu ñu jëfee ndigal yu tedd yi nga xam ni digal digal na ko digal na ko mboolem taalibe yi moo wax ne mi ngi sant yàlla bu baax di sant Sëriñ Tuuba di leen sant mbooloo mépp taalibe yeeg jullit yépp ci jëfe gi ñu jëfe ndigal li nga xam ni bàyyi ko na ci moom jëm si ci mbooloo mépp jullit yi ak taalibe yépp ak mboolem ñu ko mën te muy ndigal loo xam ni ñu ngi koy wax woon ca yëgle ga waa rabitatul madaris alquraaniya ñoo ko jële woon ci seex saalihu daan ko def at mu jot ba mujj di ko def ñaari yoon ci at mi te moom ñi ci jëmmi boppam mu daan ko jiite ci ndigalul kilifa yi daan ci ànd ak ñoom ñëpp lépp nekkoon ci loxoom ci jamonoy sëñ saalihu ba ci jamonoy seex mujj lamin ba ci jamonoy sëñ sidi moxtaar mi fi bàyyi ko bu yeggut yàlla yàlla yokk leeram lépp mu daan ko ànd ak ñoom daan leen ko jiiteel ba tey jii lépp ak si ci loxoom mu waxoon ni dafa bëgg ñu def ko nañ ko daan defee wala nu ko raw wax nañu nag defe ngeen ko noona ñu ñaan suñu borom fay leen ci ngeen jëppee tamit saadatu daara ni ci barke borom Tuubaa bu doon lu weesoo itam nag la taxoon ñu di ko digle rek mooy bëgg jullit yëpp am jàmm bëgg taalibe yi am jàmm xéewal wàcc fi dara bañ fa manqué mu wax ne nag bu ñu ko defee ba noppi nañ ko ñaanal moom ci jëmmi boppam ndax yan bi woyof ci moom te lépp lu mu bëgg a liggéeyal sëriñ bi mu liggéeyal ko ko bu ñu ko ñaanalee ba ko ñaanal ba noppi ñu ñaanal mboolem njaboot ak sëriñ Tuubaa gi moo xam ci ñaari wàll yëpp bokke sëriñ Tuubaa yi ci ñaari wàll yëpp ak taalibe sëriñ Tuubaa yi mag yëpp ak mboolem loo xam ne aju ko ci sëriñ Tuubaa ñu boole ko ci ñaan gi bu ci jugee ñaanal taalibe yëpp taalibe sëriñ Tuubaa yëpp ci jigéen ñi ñaanal julit yépp ñaanal àdduna bépp seen borom def fi jàmm ndax li ñu liggéeyal sëñ tubaa ci ndigalam mën na lépp ndax wax na ni sëñ tubaa moo wax ni rajaa uman bi yataallaqa yuraa muhaqqaqan wa maa yasuu lam yaraa képp ku yaakaar sëñ tubaa sa yaakaar du tas mukk te doo gis loo daqari man góorgóorlu nag ba yaakaar gi dëggu loolu la sëñ bi waxoon ko jottali ci gàttal ñoo ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp di ñaan ñu teewkaat yu bëree bëri ci barke borom Tuubaa Xaadimu Rasuul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi sëriñ bi dafa wax ne xeewal yi ñëw na bu na na ñëpp toog neggandiku ko bu ñu yàkkamti ñu ngi koy topp ñu koy toppatoo ñu ngi koy toppatoo na ñëpp toog neggandiku ko jere bismillah kon na ñëpp serigne bi ñaan na ñëpp serigne bi ñaan amin